am mooy problème bi mooy mm, waa Sénégal la nekk quoi di def affaire sëriñ sëriñ waaw moom nekk jëf ko tu nit ni ko gis noonu jëf jëf ko lu bon la ndax euh, yaakaar naa ne bu fekkee tam benn xale bu jigéen boo xam ne fii la ne ci dëkk bi six la amoon dem Sénégal papa papa yaay yooyu ko mu dem bi mu ñëwee mu indaale umb bi mu umbee papa papa ji yaay ji mel ne ko génne ko bi ñu ko génnee moom mu dajeeg moom ci mbedd mi jël xale bu jigéen bi xale bu am seize ans jamono ji ak ëmb mu koy tëdd ci biir ëmb ba xale bu jigéen am doom xale bu jigéen amee doom mu koy liggéeyloo ci tubaab yi di jaabante Sénégal ak ak Italie ñu ngi liggéeyloo xale bu jigéen bi demee Sénégal bu soxlaa benn un million deux million xale bu jigéen bi yónnee ko ko léegi mu koy mu koy muy dundak noonu xale bu jigéen bi ba euh, ba benn bis xale bu jigéen bi ëmb bi xale bu jigéen bi te xale bu jigéen ëmb bi ñu ko da koy dundee ndax sama sëriñ nee na par force yow mu ëmbal fois mu ëmbal la six fois te ëmbal na xale bu jigéen bi six fois yu téye xale bi daanaka six ans yoo xam ne bi muy far xale bu jigéen bi seize ans la amoon mu koy tëdde di ko dund loolu bon di ko def loolu bon durant six ans mu yor ko xale bu jigéen bi fekk di ko liggéeyal mu bàyyi ko fii di ko gëmloo ni man sëriñ laa man lépp laa booy dem si tubaab même bu ñoom sax jàppal ne sa jëmm sa a fay sa kii nekku ko dama koy dindi bala ngay boo yoree xale bu ndaw yar ko yar ko ay temps kon da ngay da koy mën a xam ñu ngi koy manipuler yooyu yow kat kii nga yaakaar ne kii la wax ne sa jëkkër la te man te man dama gëmloo ni woon yow galam nga rek man yaa ngi ko naan mais nii ak nii ak nii ak nii la def maa ngi moom dund lii def loolu moom lii bi nga koy xam seize ans la ma jotee expliqué ko ñu ko expliqué nag xel commencé tey foofu sama kër bi woo ma mais sama kër bi mun a comme que yaa ngi ci ki def ko lu bon la bi mu ñëwee nekk ak bi comme xale bi beneen xale fi mu jëkk fi fii nekk foofu bi nekkee foofu léegi sama copine bi moom nekk ci ay kër kër kër benn xayitam ba kër benn xayitam fii dëkk bi nekk fa nekk fa nekk fa ba mu toll ci lu dul wasin le temps que xale bu jigéen bi di wasin nekk te moom moom beneen xale bu jigéen bi mu yoroon fële ne na ko ba indi ko problème ba xale bu jigéen bi daw ba porté ko ba expliqué ko bi ni ba mu dem Sénégal bi mu demee Sénégal nag bàyyi fa xale bu jigéen bi ak ong béeg yëpp mu tombé corona bi xale bu jigéen bi nag sama copine bi mu bi mu demee fekk moom xale beneen xale bu jigéen bi moom porté na ko plainte ba ba dellu ci ay mbokkum après six ans mu ko doon dund yooyu yëpp ba pare traumatisé ko ndax li mu ko dund dafa def du ko wéy bu ko ndax sama copine mu yaa ngi boo des lu dul wasi nga ne Europe fi kenn yow dong yaa ne léegi bi mu wasi ni ñu bëgg a nangu ñu bëgg a nangu a nangu doom ji sama copine bi woo ma woo sama jabar ni ko kat ñu dañu am problème ndax dafa am problème ndax tubaab bi ñu ngi a jël sama doom quoi te comme que sama jabar ànd ak ma ko boole sama bi dem jëli xale bu ko ñu signé ñu ñoo jël responsable affaire yooyu tubaab bi indi la nekk a métti ci problème li tax a gën a caale li mu def ñaari xale yu jigéen ñi nii du du du kii rek du kii rek la ko def te damaa bëgg ngeen dafa ñoom ñu ngi leen gis dañoo yor benn secte boo xam ne moom bu ñëwee fa bu demee Sénégal moo gars yi dañuy ànd léegi ñuy dem ay Burkina dem ay Ghana fu nañu dem fa pour jàng affaire fiduciaire yaa ngi quoi pour affaire bi ko a njëkk a defar interview bi ma leen woowee bi problème amee ma woo leen li ma la wax ne mën na quatre cinq mois problème amee ma woo leen ñoom dañ ma dañ ma xaari mu ne ma kii bi ñu defee moom affaire bi après quelque temps ñaan xamuñu ñaata xale yu jigéen ñoo fi ñëw biir Sénégal yoo xam tey daf lu mel noonu leen def ba ñoom sax police lañ mujjee moom man nag li li tax ma ma ma ci lii du lenn du dañ nekk société boo xam ne am na ay nit ñoo xam ne tey exemple bu leen arrêté wul li muy yàq mooy ëpp lu muy defal ndax mi ngi yàq jàmbur yi mu ngi leen di yàq ba pare day ni jël day jël euh, dafa gëm affaire xale bi jigéen bu njëkk bi daan tëddee di ko def da koo porter plainte fi mu ne nii pour violence pour ak escroquerie yu bëree bëri lañ ko te exemple boo gisee sax ma tënk ci lu ndaw li rek xam xam xam te ay kii ku jigéen ku jigéen mais du du du du ñii rek te xam naa ne lii bu paasee lii bu paasee nii ba ñëpp dégg ko ñu baree baree bay dina yëkkati seen loxo ñoo xam ne def na ko muy fii ak Europe te day nekk fii di nax gars yi nekk États-Unis ñu ko yónnee xaalis di nax mari mari yi nekk fu ne lay nax nit ñi di leen gëm noonu affaire ñaseen la te du ñaseen di woo baay di di di woo di di woote bi moom ku teg dara bàyyi ñas bokkuñu leen fisiser la ni seen groupe lañ yor nekk espoir di di di di di di di di di di di di di lu leen mu ngoog yaay jafe-jafe baa ngi noonu ñu bàyyi njëkk rek tënkal ñu ko. Mm-hmm. ñu daal di ñëwaat ci yow léegi nga nga jaar fi ndax xam naa ne moom am nga loo wax paaj. <laughs> tey moom <laughs> tey xale jërëjëf euh, Mantoulaye euh, xale bu góor la bu dund loo xam ni moom moo ko fekkee euh, muy loo xam ne lu doy waar ndax dafa am benn xale bu jigéen boo xam ni 16 ans la am dëkk Ouest Foire ñu ëmbal ko biñ ko ëmbalee nag waa këram mere woon ko ba génne ko kër ga. bi mu génnee kër ga nag euh, ci ay jooyam di dox ba tasanteeg euh, euh, benn waay benn charlatan boo xam ne day wuyoo ni ab sëriñ la fii ci réew mi mm. bi mu tasanteeg moom nag ku siiw la mm. bi mu tasanteeg moom la ko laaj lan moo la naqari mu explique ko muy xati cent mille may may ko dugal ko ci otoom yóbbu ko fu mu fu mu ko fat ci jamono jooju nag xale bi ëmb na mais boobu biir bi yëgoo feeñagul mm-hmm. ñoo ngi soog a xam ni ëmb na mu commencé di ko tëddee ci kaw ëmb googu di ko tëddee ci kaw ëmb googu di ko tëddee ci kaw ci 16 ans mm. di ko tëddee ci kaw ëmb googu fekk am na xale boo xam ne takkoon na ko ca Italie na mu takkee xale bi waa ji sax nettali na ko nee na andiwul ay mbokkam dafa andi ñaari nit rek ñu may ko xale boobu nga xam ne moo nekk ca Italie nee na bi ñu ko ko mayee euh, këyitu xale bu jigéen ba nga xam ne mooy jabaram xale mm-hmm. ba jabaram yi nekk Italie kooku la ko ni ko ni ko yónnee ay këyitam mu yónnee ko ay këyitam bi mu ko yónnee këyitam mu jël këyit yi jox ko gelam bi mooy ki ëmb te nekk fii tam koy tëddee. Mhm. Eh, jox ko ko mu demee mu dem ci Italie bi mu demee Italie mu amoon fu mu ko dalal ku ñoo xam ne boole woon nañ ñooñu accueillir ko dalal ko léegi nag xam nga ni ndaw sa muy jabal ja day jël si euh, ay këyitam waaw ndax ndaw si yegsi na Italie waaw bi mu yegsee nag euh, ba di ko jël si ñuy jàmm santeek euh, di gërëmanteek santante mhm. ci la ko wax ni ko loo wax ci sama góor googu rek ci sama càmmiñ ci sama ci sama naar boobu rek maanaam xeet yooyu jigéen ñi di taggee seen jëkkër yi mu ne ko waa yow li ngay wax nii mooy lan mu ne ko ah yow ki la andi nii te mu jox la samay këyit sa mooy sama boroom kër mu ne ko mooy sa boroom kër mu ne ko waaw mu ne ko waxuma ni moom mooy sa boroom kër dani ma jigéenam nga hmm. boo xam ni euh, euh, dara umpantewu leen ci yéen ba ci ay kayitam sax mu ne ma dinaa yónnee kooku mu jox ma ay kayitam ma ñëw ci ma ma ñëw mu ne ko kooku man moo ma takk ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad jigéen bu meree day wax ci la ko xale bu jabar ji mer nag commencé wax xale bu jigéen bi moom it mer commencé parce que tumuranke daa daal di dugg commencé moom it nettali fi mu jaar ak xale bu jigéen ci la hmm. jabar ji ci boppam am càmmiñam boo xam ne moo ngi ci dëkk ba ci la ko woo explique ko problème bi kooku ni ko ñëwal te sëy bi nan ko arrêté ndax kii ko baax. Mhm. dafa bëggoon nekk jabaram nekk xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi. léegi nag xale bu jigéen bi nga xam ne mooy jabar ji sax bi nga xamee ni am na doom euh, loolu avant sax muy am doom mooy xale bu jigéen bi mu yóbbu Italie dafa mujj sax di ko cagat di ko cagat loo mooy di ko di ko booleeg ay tubaab tubaab yi di ko tëddee euh, mu xamal ko xam nga euh, boo yoree sa xaj Euh, jaaral fii fa jaar euh, boo jaree yore euh, sab xaj bi muy gone. foo ko hmm. jaar loo fa lay jaar xale boo xam ni mësta xalaat ñëw Italie mësta xalaat def nga yar ko ci bi muy gone ba andi ko Italie foo ko jaar loo fa lay jaar. Hmm. da ko wax ni ko man ab sëriñ laa. gis nga tubaab yii di la tëddee na nga xam ni tëddeewuñ la maanaam sa jëmm gi la ñuy tëddee mais sa roogeeg sa esprit ak yooyu yëpp nekku fa dara nekku fa ñoom daal ab effort rek la tëddee foofu waaye yow laaluñu la sax yow. xale gëm loolu xale moom it gëm mais nee nañu xale yu tubaab yi dafa am ñoo xam ne dafa am envie bu ñu dee tëdd ak doomu aadama dañuy bëgg ku leen di seetaan di leen applaudiser nee na nag da daan wax ni ko moom sax su bëggee moo fa ne dañ daan fay sëriñ bi naa tuddee sëriñ bi ba si àgg ci biir émission bi dinañ wax ne mooy kan euh, mun mu daal di ko ni ko fay waa ji sëriñ boobu muy fay nee na ci ko da ko daan fay mu ñu tëddee ko mu ñu fay ko moom muy moom muy moom moom muy seetaan ay waay mu am ñaar mu am ñaar léegi nag bi coow loolu nag nga xam ne xale bu jigéen bi baalu ko te moom it jabar ja dafa ëmboon bi jabar ji ëmbee ba nga xam ne nag euh, coow loolu commencé na ba pare mu wax xale bu jigéen bi ni ko euh, euh, pour ñu am alal man ak yow nga xam ne fi li ñu bëgg mu am ko mooy war ngaa yàq biir lu mat lu mat lu mat lu mat lu mat lu mat lu mat juróom benn yoon war ngaa yàq biir lu mat donc biir mu yóbboon yàq yàq na ko mais yàqaan na fa ay biir xale bi nag dafa mujj am feebarum xel ba mujj am feebarum xel moo xam moo xam ni da koy dikkal euh, ba ñu ña ko sa jàppalee ba yóbbu ko police mu porte plainte mu porte plainte nga xam ni mooy waaye ji nga xam ne moom mooy woote ab sëriñ euh, te wax ko loolu euh, te wax ko loolu dañoo bu mu yëgee ni xale bu jigéen bi dem na porté ji ko plainte waa police war koo jël ci la njëkk ci la ci la ci la ci la la daw ñëw Sénégal bi mu daan maanaam du yàgg Italie du yàgg Sénégal mais bu nekkee Sénégal xale yu jigéen ñi ñoo ko daan yónnee xaalis. jabar jàkkee waaw. bu soxlaa un million bu soxlaa deux millions ñooñu ñoo ko daan yónnee xaalis bu njëy ñëw tamit ñoom ñoo ko daan daggal sax billet boo xam ne moom mooy ñëw moo moo daan ñëw moo daan ñëw Italie bi mu dawee nag ci la jabar ji am doom bi jabar ji amee doom euh, ca ca hôpital ba euh, ci la ko tubaab yi xamal ni ko rek yow ginnaaw yow mënoo yor sa bopp doo mën a yor euh, sa doom ba naroon a nangu doom ji ci la kii nettali histoire bi ñu woo ko téléphone mu ànd ak jabaram dem ci hôpital ba ci la jël en charge jël engagement ni moo yor xale bu jigéen bi mooy yor xale bu xale bu xale ba moo yor moo yor moo yor doom bi ba bu buñ ko dee woo daan nañ ko jot ba léegi suñ ko dee woo du ko jot euh, li ma ci wax mooy man euh, euh, am na ñoo xam ne xam naa leen ñu ko xam soo leen wooyee pour laaj leen numéro bi sax boo moytu doo dootoo leen jotaat gis nga na bokkul ci benn këru diine. waaw maanaam sëriñ la buy ñaan. waaw day mais bii mbubboo nii dafa bokk ci benn kër diine. ah bon waaw. waa ji wax na ko na ko tudd na ko nee na. ah bon nee na day day wuyoo nii day tudd day day day day day day day wax ni ci këru diine ñaseen yi ci la bokk. waaw mais dafay wax ni fala jokk mais waxul ni moom sa kii dafa. Ah, dafa jël sax turu turu xeet yooyu. waaw noonu la tudd waaw kii féetali ko boppam mais du fa sët nag mais du fa sët du fa sët du fa dara bokku fa bokk taalibe la rek taalibe la xëy nag parce que taalibe comme man ma nag ni di wéy sama sëriñ ci diw laa jox waaye bokku fa santul sax sant ba waaw kay pour mu pour pour mu leer mm. santul sax sant wa pour mu leer euh, li ñuy wax rek moom mooy histoire la boo xam ne bu doy waar waaye bu am la ñaareel bi mooy li tax ma ne boo am la euh, mooy yuy am la xam nga histoire day am mooy ki nekk nettali xam na lu am la mais li ma tax man lu am la mooy du benn yoon. maanaam lii parce que commencé woon ne ko taxawal nañu la enregistré. ko enregistré parce que demoon na sax bu tudd ay tur. yu mhm. baree baree baree mhm. bari eh, ci yooyu. ci bi ñu doon def kaawu sëriñ yi fii la fi doon def kaawu sëriñ yi mu doon histoire boo xam ne mhm. histoire la bu doy waar boo xam ne nopp dalooti na <laughs> man mais toujours rek may interpellé waajur yi waaw ci yarim bi ci mhm. yorin bi mhm. parce que doom nawle la mhm. Euh, yow wér na leen defaloo yàlla dara lu mu la may doom dëgg la ñi ko amul ñu yàlla dara lu tax mu xañ leen dëgg yaay kon sama borom mu àtte ci ni mu ko neexee dëgg la teg ko jaamam mu nangu ko dëgg la yaay bu la mayee lu toll ni doom dafa am responsabilité bu mag bu la ci war léegi ñu ngi koy waxtaanee avant émission bi gis nga responsabilité waajur dafa fort surtout ndey parce que nag suñuy wax aussi ba pare dañu réere yu baree bari gis nga bi ci ëpp mooy notion de famille dafa am tendance di disparaître ci suñu réew parce que ñun ci Afrique ci Sénégal rawatina dañu am une famille élargie mhm. famille bu élastique la ñu am mhm. mooy da ngay am ndey am baay am lijaay mhm. am bàjjen ami tanta dëkkandoo ami tantay mbokk goo xam ne dëkkandoo bu yàgg moo ko indi ak cousinage bi ba loolu tax na cercle boobu war na yu bari daawuñu ko gis mu yàqu dëgg la parce que tey boo dee jaboot nekk ci sa kër jur doom yàlla indi nattu teg ci kaw njaboot gi mhm. bul boddi bul sànni mhm. parce boo sànnee rek mbedd mi jariñoo ko dëgg la te su demee ci mbedd mi saay-saay këf ko dëgg la xam nga ki nga xam ne dafay xale parce que kii kii xale yemale boppam fi mu war a yem ba nattu mm, ñëw mm. moom bu yàqu woon du ëmb mhm. parce que da ngay dem ci waaw da ngay dem maternité dem hôpital gis xale yu ndaw a ndaw a ndaw yoo xam dañuy ñëw pour planifier mais kooku di am a boobu di planifier du mës a ëmb mais ki xamul wala nattu dal ko wala ñu nax ko ba trompé ko soo ko bàyyi mu génn rek mbedd mi jariñoo ko su génnee ci mbedd mi nag day saay-saay bu mel ni kii ñu dajeel dëgg parce que dañuy wootee dañuy wootee turu sëriñ mais ñu sëriñ ay saay-saay lañu yoo xam ne dañuy am jotu jàng lu bon bon fer iji mën a dagg xaatim mën a dem ci dans la sous-région di fa def affaire fétiche ba des fois dañu mel ni ñu gëlëmal sa xel bala ngay yeewu mu yàgg mais xam nga on peut tromper une partie du peuple pendant un temps mais on ne peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps